daaneel Bour Sène Eumeu Junior Bour Sène lu mu wis trop mystique aujourd'hui Bour Sène Bour Sène li mu mystique bëri na Bour Sène na Eumeu Sène it toj danañu xeex maa la ko wax kuy dana takar naa sa lii maa la ko wax kuy dana takkar naase se Bour Sine Bour na ko day ñëw ci kawam Bour Sine day ñëw ci kawam Bour Sine day ñëw ci kawam Eumeu Sène Junior Bour Sine arbitre sifflé na Bour Sine tàccu na ko Bour Sine ngemboo ngemb lu rouge li am lu jaune li Eumeu Sène Junior ngemboo ngemb lu vert li Eumeu Sène day ñëw Eumeu Sène Bour Sine ñaari xale yu ñemee Bour Sine Eumeu Sène junior combat bi nekk combat bu décisif ci seen carrière ah Bour Sine door na léegi gos maninam la day xeex maninam la dafa ñeme xeex Bour Sine Eumeu Sène junior sànni waaye dalul Bour Sine Eumeu Sène Boursin tànk yi la jam moom la gëm xeex jël la gëm waaye lan lay fekk Boursin Eumeu Sène junior Boursin da koy loo parce que xam na ne Eumeu Sène junior ko gën a diis oh xeexkat la dafa am sañ-sañ Boursin waaye Eumeu Sène junior a ngi ne diib Eumeu Sène junior a ngi ne diib Eumeu Sène Junior Bour Sine Bour Sine Eumeu Sène Junior Bour Sine Eumeu Sène Junior Ali Thiam nooyeetul cey Ali Thiam Ali Thiam doomu nday Eumeu Junior Bour Sine 1 lay def waaye na moytuñu wàcc plaqué ko danañu xeex daw na ko jël ama seen daf ko bëgg a jàpp buur day bagaar buur sin ama seen junior ñaari xale yi dañoo ñemente dañuy xeex dañuy xeex dañuy xeex attention daw na ko jël daf ko dafa diis dafa diis dafa diis dafa diis Eumeu Sène Junior dafa diis mu ngi koy bal Eumeu Sène a ngi koy bal waaye Bour Sine ràccu na Bour Sine xeex dañuy xeex attention dañuy xeex attention kawo Bour Sine tase nañ ci suuf away ñaari xale yi bëri nañu lu neex bëri nañu lu neex ñaari xale yi Eumeu Sène Junior Bour Sine ñu ngi bañ away ah ñu ngi ci jàppante ga ñaari xale yu bëri nañu xeex nañu Bour Sine away ah ñu ngi soufflé Eumeu si Junior Bour Sine ñooyee sànq dañoo xeex bëree ñoom ñaar ñëpp a soxla combat bi waaye Eumeu Sène dafa diis Eumeu suñoor junior Bour xeex nañu bëre nañu fu muy mujjee mu ngi koy génnee saaku yi génne na ko saaku yi ba ko génnee ko saaku yi waaw waaw avertissement pour Bour Sine lay doon waaw waaw pour Bour Sine arbitre sifflé waat na Bour Junior Eumeu Sène Junior mu ngi dox ci kawam dafa diis <laughs> Bour Sine Eumeu Sène Junior Mbër Sène day xeex moom dañuy tasawaat ci suuf bëree mu ngi koy taf mu ngi koy taf Mbër Sène ah ñaari xale yi xeex nañu bëre nañu dañuy bëree ah waaway gauche droite combat bi neex na amul ku dem ardoom Eumeu est que amul kuy naaj est que amul kuy naaj est-ce que amul kuy naaj arbitre Bour Sine Eumeu Sène Junior Bour Sine est-ce que amul kuy naaj déedéet arbitre rek nee na arbitre rek di xool ñu ngi bëree Eumeu Sène Junior Bour Sine away ah combat bi day metti ñaar ñu am sañ-sañ la ñuy doon Eumeu Sène Junior ah way combat bi noo def mu metti dañoo soxla ndam ñoom ñaar ñëpp oxo Bour Sine Eumeu Sène Junior ah way day soufflé lourd la moom Eumeu Sène Junior door na coup bi dal na waaye Bour Sine dafa coriace ñaari tànk yi ñuy teg dañuy mën a xeex seen coup yi day dal ñaari fausse garde dañuy mën a weccoo ay coup Eumeu Sène Junior Bour Sine waaw waaw Bour Sine ci ay yaram lay dal ci ay peg lay dal Eumeu Sène day ñëw day jël na ko jël Eumeu Sène jël na ko ah Bour mën na ñu ngi xeex ñaari xale yi mën nañu lañu waxoon ñu ngi koy def ñu ngi xeex ñu ngi xeex ñu ngi bëree buur Eumeu Sène buur Sine Eumeu Sène Junior buur Sine Eumeu Sène Junior day ñëw indoo indi buur dafa gëm xeex dafa gëm loolu dafa gëm loolu mbaa Eumeu Sène bu combat bi yàggee dana ko attan est que Bour Sine bëgg koo vidé waaye mu ngi koy soufflé ah sa tànk bi nga fay noonu dañuy tase dañuy xeex dañuy xeex cooki xeex dañuy xeex dañuy xeex attention kawo attention away ah kuy tax la daw na ko jëlaat daw na ko jëlaat attention fi ñu jëm fi ñu jëm ama bursin daan na ko ama seen daan na bursin ama seen daan na bursin ama na bursin xeex nañu bëri nañu xeex nañu bëri nañu moo xew tey lan ngay sant naa yàlla bu baax a baax. man lu may sant mooy. suma waa yi gërëm leen sant bu baax. ma ànd ak ay xale. barki seen rafet ñu jàppale ma bu baax ci combat bi. may sant guy gi di ko siyaar di wax booy yi ñun ñëpp guy gi suñu mag la. dañ topp ci ginnaawam may sant suma booy bu baax a baax a baax. Lorenzo Thiandoum 2 maa leen di bu baax a baax may sant waa Ndiarème buur der la champion la sut na ma la combat bi dama am ni bu métti nii te yàgg ama ama bu métti nii te yàgg teen mu